bokk internet yi euh, ñu ngi fii ak euh, maître Djibi Diagne euh, bokk na ci avocat Ousmane Sonko yi nga xamante ni ñëwoon nañu fii ci cité kër góor gi doon nemmeeku seen client voilà maître lu ngeen fa jëlee ci ba seen taxawaay ak alkaati yi. waaw dañoo seeti woon sunu client muy Ousmane Sonko bi ñu ñëwee dañoo jaar ci première portail bi nga xam ne policier ya nga fa. bi ci rond point cité kër góor bi nekk ci rond point kër góor. alors biñ biñ jaaree foofu dañoo fekk benn euh, dispositif impressionnant euh, ci la ñuy ñëw présenté wu ne leen ñun ay avocat Ousmane Sonko la ñu et malheureusement commissaire bi nañu ñoom dañoo reçu am ay instructions saxam yu jógee ci kaw yi leen tere admettre ni ñuy dugg ñu ne leen nous nous des avocats suñu client la dañ ko bëgg a seet si pour xool xam ci yan condition nu nekkee foofu malheureusement euh, dañoo bañ bi ñu bañee fekk ànd nañu ak sunu huissier huissier bi constaté effectivement le fi ak déclaration yi nga xam ne moo fa moo fa jib si la ñu génn demaat wër ci deuxième entrée bi bi ñu ñëwee fekk fa également pratiquement même dispositif. bi ngeen wëree maanaam da ngeen dem ngeen ba ci bopp ko ñu Ousmane Sonko. c'est ça seen nii kër gi. Mhm. bi ñu ñëwee fekk fa également benn dispositif. Euh, ñu présenté waat génnee suñu carte ne leen ay avocat lañu avocat Ousmane Sonko dañ ko seet si pour xool ci conditions yi nga xam ne ci la nekk. malheureusement aussi euh, sous-officier bi ñu fa fekk dafa bañ carrément ne ay instruction ferme lañ jot euh, di ko ñuy replier wu di génn mais li gën a garaaw mooy bi ñu defee demi tour ñëw bay taal suñu oto si la ñu sànni lacrymogène ils ont tiré et puis lacrymogène am ay effet man mi wax ak yéen sax j'ai subi les effets d'ailleurs moo tax sama voix bi xaaw a changé nii tuuti. donc euh, avocat Ousmane Sonko yi police nationale da leen gazé devant chez Ousmane Sonko. absolument devant chez Ousmane la ñu gazé et on était obligé de rebrousser chemin. de telle sorte que Ousmane tey ñun mënuñu leen wax exactement ci yan ce que am ngeen benn notification bu war a tax ñu war a mën a euh, isolement wala séquestration ci Ousmane Sonko. non non non amuñu benn notification vous savez yu mel ni normalement il faut mu am benn décision de buy mettre la personne ci condition yi nga xam ne moom la nekkee. mais est-ce que yéen en tant que avocat aussi saisir ngeen juge bi ci loolu. Euh, non en fait avocat amul amul tout de suite comme ça euh, de façon très simple euh, yoon pour mën a dem saisir un juge lequel juge d'ailleurs faut-il le faire. Hein, donc euh, moo tax il fallait que ñu ñëw gis ko xam exactement qu'est-ce qui se passe parce que li ñu dégg ci Ousmane ci réseaux sociaux lañ koy dégg donc il fallait que ñu ñëw ñu xam exactement qu'est-ce qui se passe pour mën a organiser sa défense. am na ay informations comme quoi aussi euh, ces téléphones sont. nga xam ne ci la nekk malheureusement aussi euh, sous-officier bi ñu fa fekk dafa bañ carrément ne ay instructions fermes lañ jot di ko ñuy replier wu di génn mais li gën a mooy bi ñu defee demi-tour ñëw bay taal suñu oto si la ñu sànni lacrymogène ils ont tiré et puis lacrymogène am effet man mi wax ak yéen sax j'ai subi les effets d'ailleurs moo tax sama voix bi a changé nii tuuti. donc euh, avocat Ousmane Sonko yi police nationale da leen gazé devant chez Ousmane Sonko. absolument devant chez Ousmane la ñu gazé et on était obligé de rebrousser chemin de telle sorte que Ousmane tey ñun mënuñu leen wax exactement ci yan condition la. mais maître Diagne est-ce que am ngeen benn notification bu war tax ñu war a mën a euh, isolement wala séquestration ci Ousmane Sonko. non non non amuñu benn notification vous savez mel ni normalement il faut mu am benn décision de buy mettre la personne ci condition yi nga xam ne moom la nekkee. mais est-ce que yéen en tant que avocat aussi saisir ngeen juge bi ci loolu. Euh, non en fait avocat amul amul tout de suite comme ça euh, de façon très simple euh, yoon pour mën a dem saisir un juge lequel juge d'ailleurs faut-il le faire. donc euh, moo tax il fallait que ñu ñëw gis ko xam exactement qu'est-ce qui se passe parce que li ñu dégg ci Ousmane ci réseaux sociaux yi lañ koy dégg donc il fallait que ñu ñëw ñu xam exactement qu'est-ce qui se passe pour mën a organiser sa défense. am na ay informations comme quoi aussi euh, ces téléphones sont confisqués tout ça ba. Euh, oui oui man personnellement sax wax na ma ko que donc ils ont confisqué ses pers ses portables euh, lépp lu mu yoroon ci bagage yi mu nekkaloon dans le véhicule où il était confisqué nañ ko alors donc c'est pourquoi ñu bëggoon ko jege pour ñu xam qu'est-ce qui s'est passé exactement mën a organiser sa défense malheureusement mënuñu jot ci moom quoi loolu bu amee yéen da ngeen saisir le le bâtonnier. oui oui oui normalement dinañ def benn courrier pour saisir le bâtonnier euh, pour que le bâtonnier xool ban euh, possibilité lay pour informer la hiérarchie su ko defee ñu mën ñu bàyyi. ñu mën a seeti notre client. loolu aussi seen droit la. waay c' est un droit wala boog seen devoir Ousmane aussi devoir am. lu mu c' est un devoir Ousmane moo tax euh, on saisira le bâtonnier pour que bâtonnier mën a xool comment faire pour nous permettre ñu mën a dem ci Ousmane. ñu xool comment organiser sa défense. mais en principe lan moo war a tax ñu mën ko téye fii. Euh, non c'est compliqué parce que situation bi nga xam ne moom la Ousmane nekk euh, euh, c'est difficile d'apprécier est-ce qu'il est en résidence est-ce qu'il est en séquestration c'est c'est compliqué. Hein? mais moom nee na bi ko waa GIGN jàppee daf leen laaj ndax je suis en arrestation ñu ne ko non non non. oui justement à partir du moment où il est d'ailleurs bu nekkoon en arrestation il ne serait pas chez lui. Ouais. une arrestation se fait d'un point fi ñu la arrêté. yóbbu la dans des structures qui sont habilitées à cela. Mm-hmm. dégg parce que boo deful loolu il y a également des dispositions du code pénal. mais donc donc lii c'est une première au Sénégal. mais oui moi depuis que je suis avocat et peut-être même depuis que je j'enseignais gis une suite disposition du mais donc donc lii c'est une première au Sénégal. mais oui moi depuis que je suis avocat et peut-être même depuis que je j'enseignais à l'université mosuma gis une situation pareille je n'ai jamais vu ça c'est dommage. Merci beaucoup, Maître Diagne. Et la rédaction de Sénégal vous remercie. Je vous